moo doo ngi noonu ci oto bi ndeysaan Modou ngi noonu waaw waaw ndeysaan Modou ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu di dem di dem fi nga xamante ne mooy Lac Rose ndeysaan Modou Lac Rose la jëm mi ngi noonu ci oto bi police yee koy ndax mbooloo mu bari amul fu mu jaar ba génn ndeysaan